considéré comme baisse de niveau. je pense que tey par rapport ak je pense que loolu peut-être c'était l'année dernière ou quelque chose. et qu'est-ce qui s'est parce que boobu on a on avait un nouveau coach mooy Boniface après mu ñëw ak ay choix wu boppam et je pense que du loo xamante ne ni mën nga ko si mere parce que coach bu nekk ak lu muy xool si jour tu te ku nekk mun nga ñëw. période boobu noonu ñuy ñëw équipe nationale comme comme li ngay wax que ni peut-être nit ñi dinañ ko gis sax foog ne beste niveau la mais période boobu noonu genre j'étais le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur du championnat de de France. d'accord période bu ma ñëw équipe nationale noonu euh, affaire yooyu noonu ñëpp di am période boobu noonu je pense c'était en février kii en ce moment-là je tournais à point points 8 rebonds par match 9 rebonds par match en si championnat de France bi donc. munoo am niveau sa club <laughs> après ñëw ñëw équipe nationale ñàkk niveau tu vois mais lu ma ko gisoon mooy choix coach bi la pour yow ni mu la waroon utiliser utiliser wu la ko parce que. avant avec euh, le coach Abdourahmane Ndiaye Adidas boobu da ngeen toj. même si après nag vous avez fait moom une coupe du monde boo xamante ne moom dañ ko waroon <laughs> jël rek denc ko loolu moom fàtte ko complètement c'est une coupe du monde catastrophique pour le Sénégal. Hmm. waay waaye coupe du monde boobu moom coupe du monde après tamit poule bu ñu bokkoon on était poule bu métti nañ bokkoon parce que on était si poul boo xamante ne y avait trois maire équipes yoo xamante ne ñoom nañu rank genre un deux trois ñoom nañu rank genre si ñoom ñooy les meilleures équipes au monde ñu bokk si poule boobu noonu boo gisee même Lituanie sax après demul fenn te c'était deuxième maire équipe au monde instant boobu noonu donc euh, loolu la woon rek mooy lu ma wax rek xam nga choix coach moom man man jour la parfois am na yoo xamante ne doo si mën a dugg yenn détails yoo xam doo si mën a dugg parce que après mën na indi yenn conflits yi te. mais am na ñu fi nekkul peut-être mun nga bañ a dugg torop ci ngañ de Sagana te mun nga ci dugg sax ak ak Mamadou Gueye Paa bi parce que day day nekk prétexte aussi ñu dugg ci. Euh, dernière fenêtre bi nga xam ne disputé ngeen ko par rapport à l'utilisation de de Youssou un Youssou et puis même par rapport ak sa physionomie beaucoup de personnes se posaient des questions qu'est-ce qui se passe parce que Youssou bi ñu gisoon avant moo gënoon euh, musclé gën a kii que le le le Youssou qu'est-ce qui s'est passé Youssou bon je pense que même ja kii bi ni ñu mujjee def c'était je pense que saison kii bu baax nañ def juróom même même si on a on a perdu la finale je mm. pense que def nañ def nañ prestation bu baax par rapport par rapport ak équipe bu ñëw. ah non c'était c'était un bon tournoi. Ouais. franchement seen seen fenêtre bi. mais genre comme bu ñu waxee ci Coupe d'Afrique bi mooy lu ma la wax rek choix choix coach yi ñoo demee noonu tu vois te man te jii mënuma mënuma toog blâmer coach bi ne genre xamul lu muy def wala moom mooy yor ay choix am te coach bu nekk day ñëw ak benn mentalité de jeu mooy coach yoo am na coach yoo dañuy ñëw ne dañoo bëgg jouer à l'intérieur. te boobaa ngay gën a en tant que pivot si ngay gën a am bal bi am na coach yoo xam dañuy ñëw ne ñoom dañuy bëgg jouer à l'extérieur mooy trois points dañuy bëgg di sànni lu bëri te aujourd'hui en tant que pivot genre boo nekkee si équipe boo xamante ne ni dañuy sànni trois points yu bëri yow li mën def mooy def sale boulot bi comme ni nga ko mooy jéema a rebond jéem a jàppale équipe bi ñu jouer large tu vois donc jour bu nekk ak sa fort you naw mooy comme lu may wax rek mooy. est trop à la bonne place au bon moment oui. tu je pense que loolu la woon rek mais. mais waxtaan nga ci ak Boniface avant voilà. waaye waxtaan nañ si bokkoon nga ci cinq types yi quand même. si si non waxtaan nañ si waxtaan nañ si après il m'a expliqué que ni moom genre dafa bëgg gën a focaliser aussi ñuy sànni trois points yu bëri tu vois peut-être comme. comme moom NBA la nekk te NBA instant bii nii genre loolu mooy jeu bi que ñuy sànni trois points bëri après moi comme jour je l'ai accepté ah genre parce que mënuma forcer coach bi ne ko non genre depuis ça fait des années nii ni ñuy jouer on joue à l'intérieur si man ak góor gi donc euh, genre da ngay def loolu par force man en tant que joueur en tant que professionnel lu ma mën def rek mooy ok jéem a def jéem a adapté wu hmm. si moom jeu bu mu bëgg